nga France ma ko xool. yeah. dama xam dem nga America. te muy dëgg. moo tax noos bi bari na am nga maam America. <laughs> eh staaw. bu jeex bu jeex ñu indi beneen caat caat caat li ngay def neex na xam nga caat dama lay wax li nga xam ne moom moo nekk si moom da nga soor si moom dama la bëgg caat waaw te est-ce que xam nga leen dinaa la yóbbu America. Wow! Como? Yo, Denver nga war a live. Florida nga war a live. New York, ay Atlanta, fii du sa live. Hey! Hey, hey, hey. Voilà kii depuis treize heures ba léegi si diggante jurgoot lañ nekk ak yuuxu jurgoot ak yuuxu. Carolina Carolina Carolina. ceebu nday Sophie Carolina. ceebu nday bi yow tamit. nank ah? <laughs> waay après après des na des round yu bëri des na. <laughs> Eh, eh, eh, grand frère. ko deeti lii ah. قد تليت خنا كيما بوغ ما بوغكو خنا كيما لوف ما لوفكو انا دو اكورن كو سي كوت ديفوار نو نو اي دونت لايك كو خنا ادا نجاي ميسي كون بلا نو نو بوغ ما كاكو تشام تشام خنا ميسي سي بيتش كوت ديفوار لا نو نو نو دونت لايك ميسي سي دو امريك نو نو دونت لايك خنا ميس بلا ah wa sama ndey kii moo jara liital wa yaay wa yaay xam nga man fàtte mu cosaan fii déedéet lu ba mu fooree du léegi caat li def goût <laughs> <laughs> eh, la li ngay def temps la waaw waaw caat caat caat bëgg naa la bëgg naa la lool lool ah xawla wala quwwata illa billahi alil azim waa ayda waaw Law, lool lool lool yàqal ñu mandeegul waaw oh caat ah, <laughs> شهر لا sommande dematte wattani ayow looy def fii yàlla moom mi moom mooy metti ma di ko moccal yow kan moo la moccaloo lu sa yoon yow sama fokus lagi nak ci ndax kii sama rakk la ñoo bokk ndey ak baay waaw yow loolu Kau am compte fii nii maam ku feebar di faj la caat yaa ñàkk jom caat looy toog ak caga yii nii jom yaa gak nabon nyep. ñëpp te jànk ma wax la def dara foog ne kenn yëgu ko jàppal ne ñëpp yëg nañ ñëpp xam nañ ko di. dégg naa dégg piano piano rek te ping pong bi na yam seen biir kër. waaw ah, ok ici c'est Côte d'Ivoire. jiñ nañ ko si Jésus que ne kii defuñu ko dara bàyyi caaf ko. Oh. gogi gogi yaa ngi xaar yaa ngi xaar. hey bàyyi caaf ko. Ah. ñooy baax. bàyyi bàyyi ko bàyyi caaf ko. Eh, defuñu dara doomam.

ginaaw fête bi dañ koy def dañuy bëgg ñëpp nekk ci jamm ak salaam waaw ñu wax ak Baye tiaf ko mu ñëw nekk ci jamm ak salaam ah ak doomam yi njabot yëpp ñu nekk ci jamm ak salaam dama so mu nga wax ko dama ki paa bi da war xam ne ici c'est Côte d'Ivoire fi c'est Côte d'Ivoire waaw léegi fii du Paris tay ici c'est pas Paris harama harama dem rek Michael ma ak mom comme ça ah. mu na ñëw bokk fête ah. oh ginnaaw ay jam yow tam. léegi yéen mënu len taxu kër gu rëb bi wala mënul nekk. après nga dem fa. ngeen dem luy fenen. faa bi xol bi dafa soxor day lekk kaani. dafa bon. xol moom moom den moom moom den papa bi moo yàq biir bi. kaay baay baay Michael toogal baay toogal ah, moom laa ko doon wax ginnaaw ay jàmm xaalis boobu yëpp yow yaa ko moom. téyel fii three days four days ma dem wuti waat xaalis ma jox la ah waaw adduna amul solo amul solo amul waaw no violence ak ak ak ak ah yëpp moo nekk benn waaw waaw ñoom bu ñu organiser tabaski koorite dañuy invite ñun aussi bu ñu amee suñu feet dañ leen invite ku baax nga aw ma ni woon sax nii la demee oo ma ko waxoon démb si guddi ah léegi loolu lépp jeex na waaw ah. waaw dëgg la waaw dëgg yàlla eetu leen lii ara nekk si waaw te gis nga nag du ma yem ak yow foofu noonu hmm. xam nga léegi lan laay def hmm. toogal tuuti ma woon la euh, waaw cousin cousin waaw dama koy may maa ngi woo Aminata léegi nii mu ñëw may ma rek may ma toogal kaay toogal toogal toogal toogal toogal toogal Carolina waaw waaw waaw eh, maanaam hmm? moom pour yow la waaw day jëflante ak yow. Hmm. <laughs> waaw. dara ngay jigéen sax am na. Ah, waaw waaw waaw <laughs> waaw fii am na lépp. ah <laughs> lii lan la moom góor gu am caf ko rek lay wër. te yaa ngi caf sa bopp dafa am feeling sax. waaw dafa nice. xam nga lu ma neex si moom. Mm-hmm. góor gu neex foowee la dafa ndaw. lépp dafa rafet macha allah xool ma eh eh regarde moi defal ndànk. mu gaañ sa bopp sëgg fii xool ma. Eh. yow yaa ngi nice nii lan la nii. yaram taxawal wala dama lay cokkataan de eh xaaral waaye taxawal bu gaañ sa bopp defal nii bàyyi kol gi bàyyi kol gi ah wow. waa Thiam waaw ñun ak suñu naan yéen ak seen Wow, naan oh. <laughs> waaw. ah waaw wow, wow. xamee naa ko. waaw waaw Wow. Eh, ginnaaw ay jaam. xanaa <laughs> eh, eh. yees. waaw waaw waaw mm. waaw. Mm. yow bàyyi li ngay def teel ma kooku. waaw waaw. xanaa yees. tàkkal la. yaa ngi koy yëg. Oh. bii xanaa boisson bu bees la. Ah, bii moo ko yor bu bees la. moom it ko la tudd. ah caf ko. <laughs> bii mooy caf ka. fan yii la génn eh. waaw. Ah, ñu defar boisson ñoom ñoo ko defar xam ah, naa dafa neex moom ëpp rek. Hmm? yaa ngi koy yëg. des aujourd'hui dootoo fi déborder. déedéet eh, <laughs> wallaay. yaa wax de. loo bëgg kon lees. Eh. ma dolli bu la. Hmm. Ah. neex na. kontaan nga kon. Hmm. du ma yama yow foofu. <laughs> lan la lu xew sa yaram bi day bëgg a tàng na nag teel na de ñu ngi soog door am doole waaye ko yaa ngi ko yëg yes <laughs> waaw boisson bu bees bi tout ko la tudd. da ngay <laughs> des je da nga koy naan di jeex rek dafa mom sax dafa am tias am <laughs> feeling. bii hmm? hmm? hmm. mooy caf ka. waaw ko boisson bu bees bi noonu la tudd caf ka. <laughs> mas naa ngi rek dégg nga. lii tout dara boisson kese la. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Vai, Jafra. bar. seen xool ni. lépp dagan na. wax lii. raay leen daw ndànk rek Ousmane. kay bàyyi bàyyi waaw jógal bàyyi. bàyyi jógal boo jógal waaw bàyyi jógal teel teel toogal toogal toogal toogal. bi bi la deuxième waa koñ bi kaay leen waa koñ bi kaay leen seetaan kër gu rëb ñëw naar waa koñ be kaay leen seetaan kër gu rëb ñëw na waa koñ bi kaay leen xool waaw kaay leen xool waa koñ bi kaay leen xool waa koñ bi kaay leen xool waa koñ bi kaay leen xool waa koñ bi kaay leen xool waa koñ be kaay leen seetaan kër ah. waa koñ be kaay <laughs> leen seetaan ba jaf ko waa koñ bi kaay xool waa koñ bi kaay xool waa koñ bi la xool Eh, andi lihat, andi. Nah, Marek aja masih yow. Angay rew rek. Ini ay dome ram. Dom yep ram. Yen yep ay dome kharam gel. Khalal khalal khalal eh eh. Dom xalal xalal waay yow Wah ndey ñu gën a doon kaay mooy kacca baa nga ñuy wax laan ay dugg na fii kaay. ma na tat waaw dañu